ñoo gisandoo vidéo bi ñaari nataal moo ci nekk kenn ki moo fi njëkk saaga suñu président de la république Bassirou Diomaye fay daggal ko ndey yu leer nañ ñu dellusiwaat invité ko ci ko plateau mu delluwaat confirmer même saaga ndey kal la toogal ki nga xamante ni mooy suñu ministre de l'intérieur di Jean Baptiste Tine man nag duma ci commenté moom moo toog tey di stab ak moom kii di Ahmed Suzanne Camara lenn la wax diw mi li mu wax ak li am du benn waxul dëgg ñu yóbbu ko def ko mandat de dépôt kii nga xamante nag moo saaga suñu président la république pour la première fois mi ngi nii toog ak ministre de l'intérieur lii lan lay wane ci réew mi làq doom door doom kumba am ndey kumba amul ndey kon ñoom li ñu doon kaas démb mi ngi ci biir yéen laay bàyyi ngeen continuer commenter